mbokk yi fi mën a nekk du ñu teewlu am nañ mbégte lool di leen dégtalaat seen émission tolluwaay mu am mbégte itam di fi dalal Mba ngeen xam ko bu baax a baax mu nekk koo xam ne ni moom moo di jiitu si wàllum saytu xabaar ak di ko tas nekk administrateur avenir communication waaye nekk i tamit koo xam ne nii ku xelam màcc la si wàllum politique mu si def ay chronique yu am am solo de manière périodique euh, mu bind tamit benn téere publier ko lu yàggul dara tuddee ko Amadou Ba euh, la dernière marche mu nekk ñetteelu téereem gannaaw bu mu beneen téere sur le président Macky Sall tam beneen si li nga xam ne nii moom moo fi xewoon si diggante Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko tey ji ñu fas yéene waxtaan moom si lu yaatu si téere bi nga xam ne ni bind na ko euh, si Amadou Ba Madiambal Diagne maa ngi lay te euh, maa ngi lay fay Diallo di la nuyu di nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ñuy suivre ci Seneweb mi bënn yooyu ñooñ ba pare mhm. dama bëgg nga may ma tuuti ma mhm. am la nga xam ne ni dafa fees ci sama xol te dama ko bëgg a génne mhm. bi ma ñëwee tey fekk leen fii ci seen daluwaay dama am mbégte mbégte ci ni ma leen fekkee ndaxte gis naa ni que euh, da ngeen euh, seen patronat de presse mhm. ak si yéen da ngeen nekk ci ay conditions ya nga xam ne ku leen fi fekk naw leen jox leen cër mhm. loolu mooy ku bëgg lu baax mhm. bëggu leen jëmale kanam bañ a am complexe ci kanam kenn tey fi mu toll ni ma leen fekkee nii ngeen nekk dans de conditions ya nga xam ne amul benn média bu nekk ci menn réew ci àddina bu leen gën ay conditions de travail loolu te moo leen ciy félicité leen ci encouragé te di wax ni que royukaay la pour yi képp kuy def presse waxuma la Sénégal mais ci Afrique dafa am la nga xamante ni que il faut ñu jëm a xëcc mbir yi mu ko jëm muy jëm ci kanam. mooy améliorer conditions yi su ko defee ci la ñuy gën a nawloo ñi ko seqal aussi ci la ñuy gën a nawloo. presse waruñu koo sàggane wala soofantel ko ba nga xam ni que duñ leen jox benn cër bi kon nag boo gisee ñi nga xam ne ñu ngi góorlu ci loolu di xool ni que kat lii ñu nekk bañ ko xëy na tàmbalee lu tuuti la woon muy màgg. di jëm kanam ñu ci gis seen bopp di defar conditions yi nga xam ne ñëpp daañu ci gën a ràññeew euh, seen effort yi ngeen di def. Mm-hmm. dëgg dëgg man dama leen ciy félicité di leen ci encouragé. vraiment am naa mbégte te maa ngi félicité Abdou Salam ak toute son équipe. Euh, pour ci li ngeen di def nii te di leen ci encouragé ndax kat bu ngeen koy commencé. Mm-hmm. fekk nañu fi euh, lu tuuti la woon. waaye yàlla def na euh, am na ay tànki kanam yàlla na jëm kanam di nekk ak euh, ñeneen aussi roy ci yéen mhm, vraiment am euh, toutes mes félicitations et mes mhm, encouragements comme ñun tam ni ñuy royee si avenir communication si liggéey aussi bu am solo bi nga xam te ni def nga ko rawatina sa personnel aussi mhm. au nom de ñëpp tamit ñoo la si sargal bu baax baax parce que lu ama am solo la laaj bu njëkk bi day ñëw si téere bi nga xam te ni mu ngi ko publier si jeexitalu ay bës bi nga xam te ni si lañu génn muy Amadou Ba la dernière marche mu mel ni ñu ngi tam si dernière ligne avant la présidentielle de 2024 nga génne Amadou Ba la dernière marche la moo waral loolu waaw li ko waral lenn rek la moo di ginnaaw bi man journaliste la damay tas xabaar mhm. nekk observateur seen politique Sénégal di ko jàng di ko saytu di ci am sama xalaat te léeg-léeg aussi di ci weccante xalaat ak nit ñi suñu tolloo ci jamono ba nga xam ne dañu war a tànn njiitu réew bi mu nekk tànneef ga nga xam ne ni que tànneef gu am solo la ci ëllëg gi askan wi ak ëllëgu réew mi euh, ni nga xam ne dañ koy def ci réew yu mag yëpp réew démocratie moo de bu ñu tolloo foofa day am ay journaliste ñu jël seen xalima ñi nga xam ne ràññee nañ leen ci ñu jéem a gëstu ñooñu ñooy kan mm-hmm. wax seen jaar-jaar wax seen def li ñu def wax li ñu yaakaar ci ñoom ak li ñuy séntu ci ñoom ak wax la nga xam ni yaakaar nañ que lii mooy lu leen di tënk wala lii mooy lu di gàllankoor wala lii mooy li nga xam ni doya dina mm-hmm. ci seen taxawaay wala ci seen jëfin loolu mooy liggéey bi nga xam ne def naa ko ci livre bi ñu tuddee Amadou Ba la dernière marche mm-hmm. bi ma koy def nag dama ci waxtaan ak ñu ko xam mm-hmm. ñu mu liggéeyal ñu mu àndal màgg mm-hmm. ñu mu seqal jamono ñu mu seqal àddina waxtaan ceeg moom waxtaan ñi nga xam ne liggéey moom ba ku nekk ci ñoom am seede yow ci indi ma boole koog nag ak sama xam-xam bopp ak lu ma yëg ci sama bopp ak sama jëflanteeg moom ak li ma yëg ni que jëflante na ko ak ay nattaangoom ci biir réew mi ak ay natt ak ay kilifaam ci biir réew loolu mooy tënk bi indi livre bi buñ koy tuddee biographie la. Hmm. moo di taxaw seetlu la jàngat jaar-jaaru nit ki euh, ba mu euh, gane àdduna ba nëgë ni lu fu mu jaar ak fu mu dëkk ak fu mu cosaanoo fu mu jógee. ak lan la gàllankoor gàllankooral ci àddina ak lan la mas a taxawee ci àddina bi mhm. ak lan la mas a taxawee ci réew mi mhm. ba tey yàlla jox ko yenn cër yi mu taxaw nag ni cër bi nga xam ne ci ab fonctionnaire nekkoon naa fonctionnaire yor naa ay cër ci réew mi Mm-hmm. jiite naa ay kuréel yu mag ci réew mi ba nekk naa fi ministre de euh, nangam ak nangam ak nangam. Mm-hmm. ba nekk fi premier ministre tey rek dafa bëgg laaj nekk président de la république. Mm-hmm. def naa ni kooku dina soxal askan bi ñu jéem a xam kan la. balaa ni ñëw si jaar jaaram si wàllum administration. Euh, jaar jaaram si wàllum gouvernement. mais nit ki d' abord. Euh, moom defe naa grande Dakar la fekk baax. si ay conditions yu modeste bu nekk mu ne ko waxee noonu mais bu ñuy présenté Amadou Ba ñu bëri dañuy yaakaar koo xam ne nii dafa judd. Euh, at euh, benn kuddu or comme ni nga koy waxee. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, si gémmiñ bi nekk koo xam ne ni dara umpale dara tawu ko woon. ba tey jii ñu bëri di ko présenté comme koo xam ne nii daal il est puissant et il est aussi riche dafa dafa am koppar yu bari wax dëgg yàlla boo xoolee parcours Amadou Ba da nga koy méngale ak parcours xëy na ku mel ni Macky Sall wala parcours ku mel ni man wala ak keneen ku nuroog ñun moo di li ñu wax un enfant du peuple. Mm-hmm. ka nga xam ne xëy na tey. <coughs> mën naa ne ba Amadou Ba gane àdduna ba ñu tufle ci turam ci noppam ni ko Amadou Ba nga tudd buñ noon ay waajuram seen doom ji ñu tudd tey de ah dina nekk instituteur wala euh, inspecteur des wala cër boo ko mën di jox ci àddina mm-hmm. muy liggéey ba nga xam ne liggéeyu fonctionnaire wala liggéeyu ba nga xam ne que mën nañ ne kii kat mën na caa am lu muy yóbbu këram ñu ne alhamdulilah dama la bëgg a wax rek loolu ci loolu nii la hmm? euh, c'était pas évident pour lui fi mu jóge xëy na yàlla baaxee na ko mu nekk ci réew moom nii école publique jàppandil na fi mu mën a jàng te ay waajuram du ñu fay ndax am woon lu ñu ko mën a fayale am njàng yàlla baaxee ko xëy na mu am xarañ ka nga xamee ni njàngam yàquwut yàlla baaxe ko am ay waajur yi nga xamee ne aar nañ ko ba sànkuwul ndax fa mu jógee am na jamono yooyu nii bari na xale yu ay nattangoom ñu mu doon àndal wala ñu mun nekkandoo ay moroom moroomandoo woon. Mhm. yaa nga xam ne sànku nañu ndaxte environnement bi loolu la doon wund. ku mel noonu bu ko yàlla baaxee mu dem ba nekk ci administration ci niveau bu ci gën a élevé mooy inspecteur des impôts fonctionnaire de la hiérarchie AE dafa naan loolu consécration la déjà. mu nekk fa cër yox fa ay cër yàlla xëy na may ko aussi mu xarañ di livre bi di ko ci gis. Mhm. amul fonction bu fa importance ba nga xam occupé ko ci administration fiscale ba nekk directeur général des impôts et domaines. Mm-hmm. am na ñu mu liggéeyal foofu ña nga xam ne ay am di jàmmam lañu am na ña nga xam ne xëy na sax seen diggante mën naa am lu ca ñagas wala lu ca xajam. Mm-hmm. wala am ña nga xam ne xëy na jubluwuñ ko sax. am na luñ ci seede ci téere bi wane kat ba mu fa nekkee fu mu jaar fan la teg ay tànkam ak naka la àggee ba agsi fii kon tey loolu yàlla da ko defal ay teraanga ya nga xam ne que liggéeyam indi na ko. Euh, mu dem avancé ci àddina ba yàlla dugal ko ci gouvernement mu nekk ci gouvernement nekk ministre des finances euh, def naa ni ministre des finances euh, ci am réew ci ministère yi ci ëpp solo la. Mhm. ci am réew. ñu ni déedéet yàlla saxal ko foofu ba mu nekk fa ministre des finances bu fa yàgg bari nañu mu fa gën a yàgg fuuf. amul benn ministre de finances bu gën a yàgg Amadou Ba ci post boobu ci gouvernement Macky Sall mu jóge fa nekk affaire étrangère nekk beneen kuréel ba nga xam ne kuréel bu ñu ràññeeku ci am réew. ñu ni déedéet ñu def ko première ministre euh, mu taxaw tey kon am na jaar-jaar yu mu am euh, am na lu mu jot a liggéey am na la nga xam ni xëy na feej na ci moom maintenant nag bu tontu ci laaju euh, jàpp nañ ne ko am alal la wax naa ko ci livre bi ndaxte loolu aussi saytu naa ko. Mm-hmm. ndax livre boo koy jàngat dikk da ngay xool anam yëpp Amadou Ba ku ko dégg da nga am na xaalis. waaw macha allah fonctionnaire milliardaire lañ koy wax. fonctionnaire milliardaire. Euh, xaw ma am na milliard xaw ma amul milliard waaye mm-hmm. am na teraanga ja nga xam ne mën nañu ko cee ñee. Mm-hmm. loolu aussi du la nga xam dafa wadde ci du du du tawee ci asamaan xëy na loxo yàlla ngi ci baaxe yàlla ngi ci mais aussi mérite a nga ci ndaxte boo xoolee livre bi dama wane ni par exemple am na ay témoignages ay chef am ci impôt ñu ne bi mu nekkee par exemple inspecteur enquêteur administration fiscale yëpp amul ba mu ci gënoon a nekk performant. moo ci ëppoon ay résultats la la mu doon indi ci keesu état bi. amul mm-hmm. benn inspecteur bu mel ni moom bu ko doon indi. loolu ñoom ñëpp nangu ko. te yooyu motivation après la mu doon yooyu mm-hmm. doon am loolu ñëpp nangu nañ ko. am na ñoo xam ne liggéey moom nee nañu ba Amadou Ba nekkee ministre directeur général des impôts la administration fiscale masa am ci ay recettes mosuñu koo am ba administration fiscale amee ba nagani. Mm-hmm. kon loolu boo ci nekkee yenn fonction yi. ci benn diir bu yàgg bi. Mhm. ndax nekk na inspecteur des impôts peut-être xëy na à l'âge de moins de trente ans euh, nekk ci ba def ci carrière am yëpp échelon yi nga xam ni mooy les échelons les plus importants occupé na ko. Mhm. Euh, tey bu amee euh, teraanga warut a bett kenn liggéeyam en tout cas may na ko ko am na ñi nga xam ne ñoo ko gën a suufee ci échelon administration fiscale. gis nañu nag ay teraanga ya nga xam ne ni mm. buñ bu bu ñu ko ëppalewul it méngoon na ak yosam kon wax dëgg yàlla bu dee ku xam euh, yooyu ni muy doxee euh, du la bett ma bi ma jàngat boobu nag dama ko ci jàng dama ci boole ak méngalewu ak lu xew ci yeneen réew yu mel ni comme ay France ak yeneen wane mm. administration fiscale yenn responsabilité boo ko fa amee lu mu lay jural ci teraanga ak lu mu lay jural ci alal kon mën nga am si lu set si loo xam ne nii. non euh, du doon euh, loo xam ne ñu mën a dut baaraam lay nekk. no man daal wax dëgg yàlla néew ma la mu am ci alalam lépp set na wala mu am ci alalam lépp ñoŋ na waxuma loolu de ci livre bi waxu ko. Mhm. li livre bi wax daal moo di am na jaar-jaar ya nga xam ni am na liggéey ya nga xam ne taxawee na ko am na ay seede ya nga xam ni ñay nekkoon ay kilifaam ña nekkoon ay naataangoom ña nekkoon ay administ ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci kilifteefam. seede nañ ko indi ay firnde ni kat waxtu place sàngam boo fa nekkee weer sàngam wala trimestre sàngam di nga am nangam ci ay million wala ay centaines de millions ci mm-hmm. fonds commun fonds commun waaye ku am sa alal nag sàngoo ko yàqoo ko euh, wut ci teraanga lu la jumale kanam rek sa njaboot dafa mën mën a sula koo sikkee mm-hmm. bu amee lu ca setut wala lu ca lewul man loolu xaw ma ko ndaxte xam nga aussi coow li la muy bari bari bari koo dégg mu ni fa mu kenn du jàpp naa ko ci lii man mosuma koo dégg bokk. wala rapport bu ko ah? épinglé. wala euh, euh, euh, mbir a ngi nii tooxi doona ko mu def wax dëgg yàlla mos mosuma koo dégg mosuma koo gis kon nag bu ñu dikkee sukkandiku ci ci li mu am mbubam mu rafet wala dàllam mu rafet wala montaram mu rafet nga jàpp ni que xëy na lewut defe naa ni loolu aussi lu ñu war a moytu la ci Sénégal ndaxte Sénégal li ñu xaw a tàmm moo di bu nit ki amee teraanga rek dañuy jàpp wërta mën a nekk surtout nag buñ ne démb ak bërki démb kat ma nga doon jël car rapide wala ba nga doon dox wala fii la dëkkoon wala diw mooy ndeyam wala diw mooy baayam nit ki danga war a juddu ndóol màgg ndóol dee ndóol te àddina yàlla may la ay xam-xam ak ay moyen liggéey yokkute nga am koom-koom koom-koom alal seexluwul kenn boo jëlee Amérique tey ña fa ëpp alal il y a dix ans il vingt ans Euh, boo jëlee Microsoft ñoom Bill Gates ci benn garage lañ nekkoon pukus est-ce que xase nañ leen ko te dañoo créer la nga xam indi du leen alal ñoom Jeff Bezos fu ñu tàmbalee kenn ci ñoom dondoo ay milliards. kon lan moo tax ñu koy gën a xaare ku nekk dans le secteur privé par exemple. Euh, ku nekk daan secteur foofu la la ñu gën a xaaree nga mën a am yenn alal yu ne gàññ comme ni nga koy waxee. mais jàpp nañu ni ab fonctionnaire. Mm-hmm. Euh, boo xam ne am na looy fekk weer naam administration fiscale am na ay fonds communs comme ni nga koy waxee am na yeneen source de motivation si performance yi ngay def après ñi la si dolli. c'est mm-hmm. vrai mais buñ ko gisee si ab fonctionnaire euh, foofu noonu lay naan waaw lii nan la mën a nekkee. waaw Diallo. Euh, loolu nga wax dëgg la ku nekk privé di développer sa activité privée mën nga ci am lu ne. Mhm. mais jàppal nag benn nag nit ku di nga sénégalais ku nekk privé. Mhm. di liggéey mhm. di am alal ñu tuumaal ko nangu nga loolu. Hmm? mais nañ jël ci fonctionnaire bi. fonctionnaire ba nga xamee ne administration fiscale la nekk wala mu nekk trésor wala mu nekkoon contrôle économique wala mu nekk feneen bu yàlla dogalee yow xëy na mën ngaa toog ñetti weer gi nga am deux cent millions ne état bee la ko jox. est-ce que mën nañ la koo sikkee yow créé woo règle yooyu da ko fay fekk xam nga loolu kenn du ko weddi ñi nga xam ne dañuy ngar Amadou Ba wala di ko xaaj wala di ko tuumaal ñoom am na ci ñi nga xam ne dañuy fayeeku loolu wala lu ko jege wala ndax seen lu tolloog seen niveau de responsabilité mosoo dégg kenn ci ñoom mu ni buñ ma ko fay am déet mosumaa dégg kenn ku nekk ci administration fiscale ku ni wala administration régie financière yi ni buñ ma fay fonds commun wala dañuy lijjanti sax pour dem ay places yi nga xam ne dinañ am fonds commun yu gën a duun wala ñu affecté leen feneen sax fexe ba dellusiwaat wala garder seen statut de fonctionnaire des finances pour mën a fayeeku fonds commun yooyu ki nga xam ne dafay fayeeku fonds commun bi wala fayeeku ay prime de motivation wala ay prime de nu ñu ko tuddee performance mu liggéey ko mu nekk ci ay sart yu leer di lii la ñuy dogal ku def lii am nga lii ndax dañ la ko war a fay nga bañ koo jël am sa alal boo ko jëlee da nga koo war a gàcce woo jafandikoo mm-hmm. am déet man yaakaaruma lu mel noonu mm-hmm. te lu mel noonu gis nga système boobu du Sénégal rek la am wax naa la dama ko dama ko méngale ak fu mel ni France. Mhm. tey fonctionnaires yi nga xamee ni que boo demee Bercy les fonctions les mieux payées dans l' administration la fonction publique ñëpp yemuñu salaire ñëpp yemuñu traitement ñëpp yemuñu condition am na ñi nga xam ne xëy na yàlla baaxee na leen wala may na leen chance ñu dugg ci yenn secteurs yi lañ fay am duñ ko am feneen dama lay jox benn exemple def naa ko ci livre bi sax. am na fi jamono yi nga xam ne bu ñu nee Sénégal quel est le fonctionnaire plus riche de la République c'était xam la woon. Mhm. le greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar. ndax da doon dafa am système ba nga xam ne les fonds communs yoo xam ne les émoluments. Mhm. boobu fonds commun amagul woon ci euh, greffe. Mhm. les émoluments 1 pour cent à l'enregistrement 1 pour cent euh, au décaissement poste su greffier en chef da doon dem mu nekk nga xam ne il était multimilliardaire. ba moo yoroon tribunal lu ko fa neex lay dogal ak ña nga xam ne ay kilifaam lañu. Mm-hmm. dañuy ñëw ci di rang ci moom mu leen defal ay teraanga. loolu système benn demee woon bañ ko changé euh, gën a def démocratie walla gën a euh, tasaare mbir mi mm-hmm. am na ñu ci gën a kii système boobu bu impôt bi ak mm-hmm. trésor ak euh, douane ak yooyu moo inspiré. waa justice bi ñu def ay revendications ñu démocratiser les fonds co les émoluments ba def ko ay fonds communs. donc kon loolu dafa am ci administration la am. mais si wàllum ah. perception. débat boobu c'est candidat est-ce que mënul nekk un handicap. parce que Amadou Ba il ne li nga xam ne loolu ko yàlla wërsëgal. mais bu ko ñenn ñi di wax rek pour attaquer ko ko est-ce que loolu du mujjee nekk un handicap pour lui. enfin xëy na moom aussi dina jéem a défendre ci loolu wala ay nitam défendre ci seen bopp ci loolu wala leeral ko parce que aussi yomb na trop. yomb na torop nga ni diw dafa am xaalis ah xaalisam lewut te mënoo indi firnde ñun suñu responsabilité aussi ñun médias yi mooy loolu buñ ci indee porter une accusation da nga ko naan lan mooy firnde bi mais waruñu ko relayer parce que amoo benn firnde mhm. te aussi wax ji aussi na dama bëgg ñu taxaw ci tuuti gars yi wax ci Amadou Ba ñu ko ñu duñu duñu ni eh, dafa sàcc de dañ naan le candidat milliardaire rek la ñuy wax <laughs> ah, loolu rek la ñuy wax un fonctionnaire ñu duñu wax ni mukk dafa sàcc ah parce que ku wax boo ne dafa sàcc aussi il faut nga indi firnde bi <laughs> waaye nag yomb na trop nga taxaw ni nga am na xaalis am na xaalis bu xaalis bi lewee ah mais du moom rek moo nekk milliardaire ci candidat yi bari nañ ci trop ñu nekk ay milliardaire mm. est-ce que ñoom ñëpp mën nañoo taxaw justifier seen seen seen seen patrimoine wóoru ma néew ma hmm. nag amuñu mënuñu ko. mais hmm. dama ni poser même question bi dama poser même question bi. Hmm. candidat bi intéressé dama gëstu naa ci moom. lii laa indi. bu fekkoon gëstu naa ci beneen candidat ba gis la dama koy indi. d'accord mais wax dëgg yàlla euh, maa ngi koy baamtuwaat. Euh, dikk rek daal di ni diw am na alal euh, xam nga loolu mooy problème Sénégal aussi gis nga tey boo dikkee tey jàll nga dikk ñu nit ñi diw kat am na alal. wala diw kët moom li mu yor nii moom nu mu demee kenn di ko wax ci ba géex léeg-léeg dina wax la nga xam ne moom xamu ko sax ku ko dégg di nga yaakaar ni ki kat li xam na ko te xamu dara ko xam au lieu que mu leeral ko ni ko lii kat demewul nii même bu ko xamee ba mu wér ci boobu xam nga la may koy tont ah affaire bi des naa leer su ko defee bàyyi na fa tuuma wala bàyyi na xel mu lënd ci bopp nit yi en tout cas man néewuma pour tëj wax ji foofu alalam nii la toll xaw ma ko am jort naa ni nag yàlla may na ko teraanga jort naa ni nag ci li ma xam ci réew mi li ma xam ci moom mu am ko yaakaaruma ni am na ñi nga xam ñi xëccook moom ëppale na leen du kenn ci ñoom nag ñi nekkoon ci gouvernement bi mm-hmm. ka nga xamee ne amul kenn ku ma xamul ci yow patrimoine ba xamal bien ya nga xamee ni ko ëpp li ma xam ci Amadou Ba ëpp na ko te ci livre bi Amadou Ba tontu na ci xamal na ne ma ni ma benn bien la masa am à l'étranger mi ngi ci livre bi Canada la nekkoon ba fa doom di ba fa doom di jàngoon la jëndoon benn appartement jaay na ko en deux xamal na ma ni ma amul benn compte à l'étranger ba nga xamee ni mën nga faa dikk fëgg ko tey fekk fa lu ëpp quinze mille dollars mooy lu tolloog dix millions de francs CFA. amul benn compte am boo xam ne. loolu la wax man xam nga loolu la wax. Mhm. na ko keneen na keneen wax lu mel noonu xam nga wax naa la moom bu waxee ku ko dégg te nga ni kat waxal leneen weddi ko. Mhm. mais mi ngi ci livre bi dégg gu ko ko weddi. parce que bu jëlee responsabilité mën a wax loolu rek xëy na fa mu na ko ndaxte kat jamono dem na bëgg xam ne ko wax loolu wóorul nit ñi mën nañu koo weddi ci tànk tànk bi ndaxte kat wax dëgg yàlla man de xawum na xawuma ma ko xamaluma ko patrimoine à l'étranger mais man xamal naa ay candidat patrimoine à l'étranger te xamal naa leen ñu am patrimoine ba nga xam ne ba ñu koy am ñi ngi nekk ci gouvernement te ñooñu boo leen déggee ñooy ñooy sànni xeer naan que candidat milliardaire moo tax ci livre bi laaj naa ko posé naa ci benn question ni milliardaire ou riche pour être riche. Hmm? Hmm. nañu wax na ku ne wax li nga xam. xam nga ak li nga am ak li nga xam ak li nga am. Hmm. parce que junj sànni ci mbedd mi rek comme ça aussi yaa ngi tuumaal nit. d' accord d' accord léegi jaar-jaaru Amadou Ba aussi si wàllum gouvernement c' est vrai na ay postes yu am solo euh, ba nu mu nekkee ministre de l' économie et des finances ba nu mu nekkee ministre des affaires étrangères. mais à de de 2019 bi président Macky Sall faluwaatee hmm. bi mu dindee poste de premier ministre dafa am ñoo xam ne ni si mini ay ministre la woon si gouvernement ba weesu woon dafa tàkkali ko ak ñoom wala bokk boo bokk ñoon si gouvernement bi dañ tegaatoon na ko hmm. amaro boobu bokkoon si euh, période boobu noonu période de ñàkk déggoo la woon période de ñaaw njort la woon euh, wala lan moo xewoon si diggante président Macky Sall ak euh, Amadou Ba laaj bi am na solo trop ndaxte ci biir livre bi sax tontu naa ci lu mel noonu wala indi naa ci ay tegtal nee naa kat seen diggante day am ay hauts ak ay bas euh, ñoom yàgg nañu ànd yàgg nañu xamante bokk. Euh, hmm. lu jiitu sax Macky Sall di nekk président xëy na ànd ànd sax c'est un peu trop dire. Hmm. mais yàgg nañu xamante am na cofeer wala nawloo bu doxoon seen diggante. Hmm. ba avant Macky Sall di nekk président de la République dafa dig Amadou Ba ni ko yow de yaay war a nekk sama ministre des finances. kooku depuis 2010 la ko def indi naa ci ay firnde ci livre Macky Sall indi naa bi indi naa ci ay seede ak euh, ñi nga xam ne fekkee nañ ko ak luñ euh, waxtaan wa ak euh, xëy na kóllëre gañu gañu gañu nasoon bi mu ndikkee premier gouvernement Macky Sall bi mu formé muy Abdou mbay jiite ko Amadou Ba dafa waroon nekk ministre du budget mi ngi ci livre bi mm. loolu yàlla sottalu ko xëy na jotagul woon ñun na may la Daouda Diallo ci palaasam la ca war la ca xew ku liir livre bi di nga ko ci fekk la ko tere ñu daw Amadou Ba continuer Macky Sall fekk ko mu nekk directeur général des impôts et domaines mu bàyyi ko ca place ba bari na ña nga xam ne nekkoon nañ ci côté amalu Ba nekkoon nañ ci côté Macky Sall du mm. moins euh, amul lu ñu fexewul woon pour Amadou Ba jógee directeur général des impôts et domaines ba ba ñuy def traque des biens mal ak bari nañu xam ne nañ ko ciy dugal laale taxalaale ko ci Macky Sall tànqamlu loolu lépp bàyyi ko directeur général des impôts et domaines ba moo ko fay jëlee da koo def ministre de l'économie et des finances kon jox ko grade bu gën a important ñu ànd mu nekk ak moom lu mat juróomi ak ministre de l'économie et des finances performance yi fa Amadou Ba def wax dëgg yàlla livre bi indi na ko. Mm-hmm. ay taxaw seetlu la. ak taux de croissance yi la mu fa def ci taux de croissance. Mm-hmm. musta am Sénégal xam nga aussi nit ki da nga naan da wax da koy da ngay wax la mu def. Mm-hmm. ak PSE bi. fekk nañ fi taux de croissance fu mu toll woon. fi mu toll ba fa Amadou Ba di jóge fekkoon nañu politique publique Sénégal fu mu tolloon nu mu mujjee ba fa Amadou Ba di jóge ak koom-koomu Sénégal ak yokkuteem ak kóolute gi nga xame ni ñiy liggéey ak Sénégal di ko jox seen alal fu mu toll bi fa Amadou Ba nekkee ak ba mu fa jóge kon loolu demoon na ba Amadou Ba am na cër bu mu ko joxoon ci réew mi brusquement 2019 taxaw comme ni nga ko waxee ex président ñu fal ko mu taqali ko ay ministres yu bari dont Amadou Ba mii. Euh, ci la bokkoon supprimer poste euh, ba muy supprimer avant sax muy supprimer poste premier dafa jëlee Amadou Ba ministère des finances mm-hmm. Mm-hmm. yóbbu ko affaire étrangère loolu am na leer leeral bu ci nekk ci livre bi parce que boo xoolee 2019 bi président bi ñu ko falaatee ba pare Macky Sall dafa xar ministère de finance mm-hmm. waaw def ko ministère de l'économie et du plan def ministère des finance et du budget euh, ci sama njort xalaatuma woon ni dina mën a jox Amadou Ba mu nekkoon ministre de l' économie des finances et du plan am yenn résultat yi mu xar ministère di ko jox genn wàllu ministère pour man xëy na président ci ni ma xamee ni muy doxale yaakaaruma nii dina defee nu mel noonu kon aw ma ci ba mu xaree ministère bi mu yëkkati Amadou Ba yóbbu ko feneen ci la ko yóbbu affaire étrangère loolu sax nu mu demee affaire étrangère am na ci lu ma ci indi ci livre bi mm-hmm. ndax xëy am na feneen suñ ko bëggoon yóbbu muy ministère du pétrole ñu yóbbu ko affaire étrangère mu def fa lu mat attaque euh, lu tollook at ñu defaat remaniement mu génn gouvernement bi comme ni nga ko waxee pour tontu sa laaj boobu amoon na xëy na féewaloo wala incompréhension wala xëy na jote sax man nañ ko tuddee noonu ndaxte ay nit ñu dee ànd ba càgg ñu mm. dogaloo mën na la koy war a indi bari na Amadou Ba génn ci gouvernement bi toog ñaari at nekk ci biti président ba ko génnewul ci gouvernement bi moo toogaat sem jëli ji ko waxuma la du ko dugalaat ci ko mais ko def premier ministre kon bu amee lu doxoon seen diggante la nga xamee ni que ñaga sonn na mujj na la tax bu amee seen diggante la nga xam ne leerul mujj na leer bu amee seen diggante la nga xamee ni que ñàkk juboo la woon kon juboo mujj na am kon loolu mooy indi trajectoire Amadou Ba ci gouvernement ak Macky Sall donc kon damay euh, dinaa nangu ni que parce que ñun journaliste ay fee la ñuy wax mm. lii moo xewoon lu ko expliquer loolu am na ci ay seede yoo xam ne am na ci loolu ni Amadou Ba wax na ko ci livre bi loolu ni Macky wax na ko ci livre bi ak keneen ak keneen ku ko fekkee ak ñi ko dund ak loolu aussi ku livre bi di ci fekk lu ay tegtal yu mel noonu. jamono ji dox ba président Macky Sall euh, tànn ko gannaaw bi mu amee ay candidat la candidature euh, ñu dénk liggéey bi le président Moustapha Niass ba mu recevoir nañ ko nekk en tout cas ñu def ay mécanismes. Mhm. ba président tànn Amadou Ba comme candidat euh, ñu bëri say observateur jàpp ne. Amadou Ba donte ne président Macky tànn na ko mais day mel ni président tànn na ko pare mais nam ko war a jiitalee mu fësal boppam demeewul noonu ndax yow gis-gis boobu nga si am. non vraiment man gisewuma ko noonu ndaxte tànn bi ko président tànn du di tànn ba xam ne dafa tëb tëb rek tànn ko nii euh, Macky wax dëgg yàlla euh, ba mu amee yéene proposé Amadou Ba pour mu nekk candidat président la République wax dëgg yàlla boobu demaguñu deux mille dix-neuf Macky Sall derrière le masque indi naa ci ay firnde livre bi indi naa ci firnde mm. gis nga biñ ko falee deux mille dix neuf premier voyage bu Macky Sall en Allemagne booba sommet euh, forum avec l'Afrique la Angela Merkel moo nekkoon chancelière ba muy ñibb mu ngi ànd ci avion bi ak Adesina Okungwu buy président de la Banque africaine de développement mm. février ba après première élection mu ngi ci livre bi ci la ko waxoon ni ko 2024 de man Amadou Ba xalaat naa ni ko du da ko di du ma nekk candidat mais xalaat naa ko mel ne seen waa ji Amadou Ba mu nekk ma candidat 2019. après mm. sa réélection la ko président wax Adesina Adesina ni ko ah bu dee Amadou Ba de moom vraiment dinaa dinañ ko mën a jàppale ñun Banque africaine de développement ndax yàgg nañu liggéeyam te nawloo nañu liggéeyam kon tànn Amadou Ba du bees ci président Macky Sall. bañ a nekk candidatam troisième candidature. wala troisième mandat du lu bees ci président. du lu bees ci président wax naa ko waxati naa ko. ba fi nit ñi tëll tëll yi naan président dafay def ay plan troisième mandat ak day def li li dama leen wax ne hey bu leen firi géntu kenn vous lui prêtez des intentions. booba man nangu naa du benn du ñaar ci lu président nas ni que du nekk candidat du benn du ñaar xamoon naa ko amoon naa ci firnde. mais la nga xam ni nit dala koo dénk. ci biirum nekk ngeen seq ko muy mm-hmm. confidence du man maa ko ko war a waxal. Mm-hmm. te aussi jàppoon naa ne jamono day dox man naa am sax la mu nas na mu nisaroon. dem ba jamono ko mm-hmm. kon du awuma woon responsabilité war koo wax. mais wax naa ko du benn du ñaar baamtu naa ko indi naa ci ay firnde wax naa ci ay dat ay seede wax ay ñi ko xam ni ci loolu bokkoon nañ ci ñu ko yëg muy Amadou Ba mii. ba ma président waxee ni mag en deux mille vingt quatre Amadou Ba lay nekk président deux mille dix huit la woon bind naa ko ci livre Amadou Ba du ko weddi Macky Sall du ko weddi ak keneen ku sës ci Macky Sall kay xëy xëy na baaxee woon na la àggale la foofu donc kon loolu du lu bees mais Sénégal toujours mooy li ñuy wax rek léeg-léeg dañuy euh, bëgg xam lu nekk ci bopp li ñu wala ku hmm. nekk ku nekk ñoo ngi la bëgg defal ay complot ay plan ay nisër yu yi nga xam ne léeg-léeg sax day sore ak li nit ki xalaat. gis nga man mi sans bopp léeg-léeg naa toog dégg nit wax la nga xam ne damay toog ba jàmbal est-ce que kii man ma jàmbal la wax. waaw yow tam personnage bu xaw a kii nga. loolu sax hmm? dina si ñëwaat hmm? mais léegi euh, maa ngi woon si laaj bi am na ñu jàpp ne président tànn na ko. Hmm. mais na mu ko war a demee demeewul noonu. non parce que euh, conseil <laughs> euh, yi mu def nii conseil des ministres délocalisé yu mu mujjee def ak nangam. tournée yu mu def. président mu li mu amatul lu mu desal Amadou Ba amatul lu mu ko desal tànn na ko. jox na ko responsabilité dina ko yaay sama candidat dinaa la jàppale bis bu yàlla sàkk président bi ngi taxaw di dox pour Amadou Ba gën a taxaw gën a dëgër ci APR ci benn bokk yaakaar ak ci biir réew di ko présenter ay nit di ko booleeg ay nit ñi nga xam ne sax dañoo am difficulté pour jàppale Amadou Ba président mi ngi leen di dox di leen démarché pour bari na ñi nga xam ne changé nañu seen position président moo leen démarché moo moo ko lijjanti def na ci yéeneem def na ci dooleem. ci anam bu nekk kon loolu Amadou Ba xam na ko président xam na ko keneen xam na ko kon deseelatu ko dara maintenant li nga xam ne moo xew président mënul nekk président ba 2 avril 2024. Mm-hmm. di ko tànn benn candidat daal di effacé wu. am na cër yi nga xam ne allah kulli al jusqu'au 2 avril 2024 président Macky Sall mooy la ñuy wax président la république du Sénégal. Mm-hmm. bu yàlla dogalee nag ñu fal Amadou Ba amadu Ba bu bu boobaa mu passation de service nekk président mais fi mu Amadou Ba mooy premier ministre premier ministre bu sa président taxawee tu n'existes pas premier ministre bu président taxawee amul droit discours officiel. waaw amoo droit mhm. exister. Mhm. loolu aussi il faut que nit ñi nangu ko. dañoo bëgg kon Macky Sall fal euh, proposé Amadou Ba rek daal di ko di ko falu ga daal di dem toog këram non du loolu élection jotagul. président Macky Sall am na yéene xëy na Amadou Ba nekk wutu ko mais man na am bu électeurs yi doxalee keneen woy mooy wutu président Macky Sall responsabilité bi mu am en tan que chef d'État da koy motal premier ministre am ay responsabilités en tant que premier ministre bu campagne électorale jotee nag mais premier ministre boobu nekk candidat dina dem campagne yi président Macky Sall am na possibilité jàppale ko ci campagne te am na yéen te nee dina ko def donc kon laa fi gis franchement la nga xam ne naan fësalu ko. mais am na sol ñu jàpp ne Amadou Ba si wàllu boppam dafa xaw a baatu amorphe nekkul sama baat ku mel ni Souleymane Jules Diop wax na ko te. Mm-hmm. Euh, si si si Benno la bokk. ak ñan ñu jàpp ne daal nu mu war a taxawaay bu mu war a am en tant que candidat war na gën a mën a yëngu. non xam nga euh, tontu boobu ci tontu bi ma jëkk a wax li laay wax mënul taxawee taxawaayu chef d'état incarné ko ndax dafa am président bu nekk ci kawam nekk nekk patron il faut tey. xam nga ñi wax naan Amadou Ba incarné wul. bu fi defoon dara lu nga xamee ni dafa dikk fësal boppam benn bi gaa yi ni ko eh kii moom faloogul bëgg jël sa place. <laughs> c'est la vérité aussi <laughs> non mais Diallo dañoo wax dëgg mu fi defoon lu fi defoon laa la wax wax fii la nga xëy waru koo wax. wala mu taxaw fi na nga xamul taxaw wala mu taxaw ñu ni ko ah mais yow gis nga Amadou Ba bi nga ko jëlee ba léegi costume yi sol sax moo gën a rafet say costume. wala bu taxawee sa léegi dootu la bàyyi nga jiitu ko day taxaw sa wet non xam waxante dëgg rek xam nga loolu mooy Sénégal aussi donc aussi te Amadou Ba wax dëgg yàlla jàpp naa ne am na lu ma xam ci moom ku prudent la yaa am na erreur yi xëy du ko def allah kulli aal am na erreur yi nga ko ciy xaar di nga xaddi ndax ko mës a def d'abord d'abord par li ma xam ci moom ak li nga xam nangu naa ko ci moom du benn du ñaar moo di am na ab cir wala. tu ne dis pas même respect mais am na vénération bi xam ne da ko xam nga tey Amadou Ba c'était le seul ba nga xamee ne man wax naa ko Macky Sall maa ngi dëkk maa maa ñëpp nga may lire di ma dégg. man maa taxawoon ni Macky Sall li ma gis day moo di bu amee ka nga xamee ni sa entourage bi man naa dogu di du poser un acte contre yow muy Amadou Ba la parce que xam nga la moo tax dafa am nit ki da ko am loo koy takkee xam fan la Macky moo may Amadou Ba booba nommé gu ko ministre. ba Macky ñëwee amalu Ba nekk directeur général des impôts et domaines tout le pouvoir de Macky Sall di premier ministre ba Abdoul mbay di ministre yi nekk ci gouvernement bi di responsable APR ñëpp ni ko dàq ko impôt Macky Sall bañ na dañ ko dàq loolu lu Amadou Ba jàpp la ñu ni déet jàpp nañu ay Tahibou Ndiaye jàpp nañu ay Karim amalu Amadou Ba moo jiite woon loolu moo jiite mhm. càcc gi nañ ko jàpp Macky Sall ni sama xel xalaatu ko non seulement nangu ko poursuivre parce que gisul lu mu ko poursuivre mais nangu ko jël ca post ba à partir de cet parce que livre bi ku nekk xam na. datee naa sama relation ak Amadou Ba ak lu ñu doon gislante. période élection yooyu dafa am lu ñu doon discuter ak lu ñu doon waxtaan. booba la Amadou Ba dogu ci Macky Sall pour toujours ñu ni déet mu jël ko def ko ministre des finances gis nga bi ci seen diggante ñaari at yi nga xam ne Amadou Ba nekk fu gouvernement la xëy na diggante Macky Sall xaw na soroo waaw benn discours la Amadou Ba mas a am wuy wax bu ñaaw wala luy jëf ba nga xam ne ni day nekk safaan ci Macky Sall du jóge ci man wala doo ko dégg ci man ça a toujours été constant tey am na ña nga xam ne ñu ngi wax dañ doon dëkk di seeti Amadou Ba naan ko wéy da war a wut sa yoonu bopp. waaw da war a dem euh, samp samp sa këru bopp et cetera Amadou Ba laa toujours refusé. il a toujours refusé ça il a di bu président day lu mu wax lay wax bu tey. bu président nekkoon troisième mandat Amadou Ba moo koy mooy mooy nekk directeur de campagne moo koy ciy jiitu en termes de soutien ça je, suis certain. parce que mi naa naan xaw ma loyauté loolu laa xam ci moom te a gis nga bu ñu waxante rek man dama eh, mën naa jàpp ni que kuy waxtaan ak président laa lu bari kuy waxtaan ak Amadou Ba la kuy waxtaan ak yu bari laa. damaa gis ay yenn wax yi dañ koy wax damaa tax ah, man de li ma du lu ma xamut ak lu wax ji lu mu bari bari bari lenn laa mën a seede mooy bu dee amalu ba daal doo ci am mbetteel ci par rapport à lëkkat si biir loolu man kooku franchement c'est ma responsabilité parce que loolu laa dund loolu laa fekkee gis nga situation bu mel noonu sëñ taxa xalif général des mourides taxaw na ci jëf yi nga xam ne xam na ni Amadou Bakar xam na lu xëy na Amadou Ba dénk na ko lu mu ma dénkul wala lu mu xam ci Amadou lu ma lu ma xamul man mais moom wax xam ne du président de la république bu Amadou Ba ak président de la république defaroo sëñ Mountakha moo ko defar. wax diggante bi xajamoon na ba so euh, féewaloo am commencé woon na am mais tey ba sëñ mu Mountakha amee lu mu nemmeeku ci Amadou Ba te bind naa ko ci livre bi. daf ko mm-hmm. ni ko nit ko baax nga dinaa wax ak président pour seen diggante defaru te mu sëñ Mountakha mu ta toog weer wa nga xam ne bi temps musul woo Amadou Ba ni ko la ma la waxoon démb ak barki démb laa lay gënt ne di la digal. di la mm-hmm. diggal bu la kenn dégg ci dara toogal ànd yàlla nga xaar euh, déglu déglu sa kili déglu président mooy sa kilifa. kilifa danga koy bàyyeek boppam bàyyeekoo sa bopp ba tey yàlla doxal non seulement Macky Sall jël na Amadou Ba def ko premier ministre lu lu bett ñu bëri parce que am na ñi nga xam ne bal ko ba defee def leen ñu ni déet mu jël ko def ko candidat ni ko yow laa bëgg nga wutuma ba mu ko jëlee aussi am na bari na ñu mu bett kon loolu aussi constance boobu ak euh, euh, xëy na euh, résilience boobu Amadou Ba am. Mm-hmm. ak xëy na le président seetlu ci moom nemmeeku ko ci moom. moo tax mu jox confiance boobu parce que kat doo jël kenn ka nga xam ne wóolu ko def ko premier ministre wala amoo ci moom yaakaar wala nga jël ko kat ni ko yow laa bëgg nga wuutu ma. d' accord léegi le coefficient personnel de Amadou Ba électoralement est ce que Amadou Ba am na dayo boobu si wàllum électorat parce que dañ koy faral di tooñee sax koo xam ne nii maanaam parcelle na mu ko waroon téewee. Mhm. si wàllum électorat téewee ko noonu. 2017 mhm. la gëj a def. benn exploit politique. Mm-hmm. bi mu jiite woon dis euh, benn bokk yaakaar a Dakar ba gañe ko mais de mars euh, de janvier deux mille vingt deux yi amoon ak tamit élection législative yi ñu génn gisuñu fi taxawaay bu am solo si wàllum résultat si wàllum élection loolu tam am na ñu jàpp ne mën na nekk un handicap pour lui. ñun ay journalistes lañu dañu war a analyser ay faits. Mm-hmm. da nga wax coefficient électoral. Mm-hmm. Euh, bi Macky Sall nekkee au pouvoir ba léegi. élection yi nga xamee ni que Amadou Ba jiital nañ ko Dakar yëpp dañ ko gagné yan élection lañ fi la fi Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar perte 2014 la mooy élection locale. Mhm. booba Mimi moo nekkoon candidat. waaw Dakar nekk premier ministre nekk candidat mhm. Dakar. APR ak Benno Bokk Yaakaar perte élection yooyu. Mhm. Khalifa Sall moo gagné woon. am déet. élection législative benn bokk yaakaar moo gagné Dakar Amadou Ba moo nekkoon tête de liste. Mhm. Dakar. Mhm. loolu c' est un fait constant historique vérifiable. Mhm. kon ba Amadou Ba nekkee tête de liste dañoo gagné. am déet. ñu dawal campagne référendaire. 2016. 2016. avant élection législative yooyu Amadou Ba moo ne jiite woon campagne bi Dakar référendum boobu Macky Sall daf ko gagné Dakar c' est un fait historique que personne ne peut contester ñu dem élection présidentielle. 2019 Amadou Ba nekk diriger la campagne du président Macky Sall à Dakar Macky Sall dafa gagné fii 2019 à Dakar loolu c'est des faits historiques yaa nga xamee ni que personne ne peut les contester. ñu dikk 2022 élection locale ak législative am. Mm-hmm. Mm-hmm. Diouf Sarr moo nekkoon tête de liste Dakar aux élections locales kon foofu. mu nu ñu ko attribuer Amadou Ba. Amadou Ba nekk coordonnateur national. non non coordonnateur non coordonnateur national d' accord bon mais en tout cas Dakar nga wax waxoo <laughs> au niveau national. Hmm? Dakar donc kon ka ñu jiitaloon perte na. Mm-hmm. élection législative aussi jiitaluñu woon Amadou Ba à Dakar. il n'avait pas aussi dirigé la campagne nationale. mu mm-hmm. Touré moo ko jiite woon on a vu des résultats qu'on a vu kon bu ñu dee dañuy def ay seetlu rek di mesurer ay faits kon mën nañ ni que kat Amadou Ba mën nañ jàpp ni que bu ñu ko jiitalee gagné nañu fu ñu ko fu ñu ñàkkee gagné lañ ko jiitalul kon loolu c'est des faits historiques maintenant la sa laaj bi li ci am solo moom tey bu amul Ba defoon boppam ni que moom na gagné benn bokk yaakaar Dakar wala Sénégal mooy tax mu nekk président kon mi ngi sa mi ngi juum un chef d'État qui sera élu sera élu au-delà des bases de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar dafa am ay Sénégalais ya nga xam ni ku mel ni yow la ku mel ni man la ku mel ni keneen la bokkuñu APR bokkuñu benn bokk yaakaar ne dañuy voté wala ñu nekk même ci yeneen parti politique gis nga candidat bi moom a gën a doy kat moom lay voté aujourd'hui mel na ni parce que élection aussi tant que àggoo ca mënoo koo natt mënoo xam lu nit ñuy voté ak lu muy jur mais candidat yi nga xamee ne que ñi ngi taxaw ci langue politique gi nurul na ni Amadou Ba moo fi am capacité mobiliser au la de son parti loolu lay nuru néew ma looloo am parce que aussi ay la lañu dañuy jàngat rek. est-ce que la muy mobiliser au-delà de sa base politique familiale de euh, vraiment son socle de APR ou de Benno Bokk Yaakaar dina doy am déet loolu man xaw ma ko. mais mën nañu njort ni que am na capacité boobu. te boo xoolee par exemple gis nga campagne parrainage dafa am lu muy wund jàppal ni que dafa am. structure APR yaa xam ne mobilisé nañu ak benn bokk yaakaar wutal ko ay parrainage mais dafa am ay sénégalais ya nga xam ne ni bokkuñu APR bokkuñu benn bokk yaakaar toog seen biir kër ay yeneen sénégalais ñëw joxe ay parrainage pour Amadou Ba te bokkuñu benn partie politique. gis nga démb am na benn fee ba nga xam ne presse bi da ko relevé wul sax mais dafa pour man dafa important. kenn mosul gis la femme de Amadou Ba mu dem sur le terrain di wut ay parrainage mm-hmm. mais biir këram nit ñi fekk nañ ko fa indi ko fa trois cent quatre-vingt-seize mille parrainage mu jox ko Diouf Sarr ah, kon nekkul moom moo ko dem wuti dañ ko ko indil dañ ko ko indil biir këram ay xarit ay am di jàmm ay wëlëre ya nga xam ne dem nañu sas seen bopp ni war nañu wuti ay parrainage indil ko ko kooku bokkul c'est en dehors de la euh, en dehors des euh, euh, des base ou des structures politiques donc loolu da loolu la wala tegtal la élection yi ñëw tant que àggaguñ ca ba wote ba ca ca pandaw ja kenn du xam ku koy gañe wala ku ko dul gañe mais bu ñuy jàngat dañ naan kii kat am na ay chance ki am na ay atu mais est-ce que Amadou Ba sénégalais xam nañ ko. on a vu benn kii kuy naan président boo demee waxal Amadou Ba te Amadou baa ngi toog loolu est-ce que ce symptomatique de ñu bari si askan wi. Mm-hmm. amaan Amadou Ba bu ñu koy présenté dina wax ku bëri ku am jaar-jaar la ku bëri jàmm la ku dalal xel ñu bari la. Mm-hmm. mais est-ce que sénégalais yi dans leur majorité xam nañ Amadou Ba. est-ce que Amadou Ba est présent dans les débats na peut-être que boo bon xëy na loolu waxin la rek ndax xam nañu Amadou Ba ndax am nit am réew boo fa nekkee nag ministre des finances pendant cinq ans. nekk fa ministre des affaires étrangères nekk fa premier ministre ba tey nga ne da nga nekk candidat sénégalais xam nañ la euh, xam nañ la ban façon xam nga ñuy wax mooy ràññee la xam sa image. Mm. mais mais loolu sax da dul candidat boo ko defee da nga am c'est la rencontre d'un candidat avec son peuple pour une mhm. tey kon Amadou Ba fu ko xam ba dese war na faa dem war naa wax ak ñooñu war na leen a seeti élection boo waroo négocier waroo négliger benn baat mhm. benn carte waroo ko négliger kon euh, xam nañ ko xamuñu ko xay na xam nga médias yi tamit léeg-léeg ñi gën a taxaw ci médias yi wala ëpp lu ñu génn ci médias yi lañ yaakaar ñoom la ñu gën a xam am na ñi nga ne bu ñuy géntam yaay kenn du leen déglu am na ñi nga xam ne bu ñuy wax ci tele bi dangay ngay zappé dem seeti beneen chaîne mm. c'est ça la vérité aussi est-ce kon xam nañ ko tax na ñu ñu votel ko est-ce que ki may wax doy na ma wala nawloo naa ko ci wax yi parce que wax ju bari aussi jaru ko est-ce que kii bu mas mas kaa dégg Amadou Ba wax la nga xam ne waxuwul tam na yenn candidat dégg nga lañu wax fi la nga xam ne waxuwul est-ce que sénégalais biy tànn du xool ni que kii kat am na sens de l'état wala kii mat na kilifteef ci jëfam ci taxawaayam ci doxalinam ak ci waxinam mais kooku moom lay tànn kon bu ñu jàpp ni que rek ki nga xam ne moo nekk ci média yi mbel mbel mbel mbel la notoriété médiatique mooy siiw ci média yi taxul nga falu. d'accord ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci média yi boo xoolee mënuñoo am parrainage. Hmm. am na fi candidat yoo xam ne ñu ngi fi demee dañu demoon di wut parrainage en deux mille dix-neuf amuñu ko te pourtant da nga naan ñooñu la ñu gën a xam. xam nga sénégalais bi da toujours bul xam nga li ñuy li ñuy réere mbir ñun dañuy jàpp ni que ñun ñooy euh, citoyen bi wala sénégalais électeur bi am xar la da koy diiri rek da koy wommat la nga xam électeur bi moo xam na lu ñu toll wala lu ko ëpp bu loo jàng la bi am na lu mu jàng lu toll lu ñuy toll lu ko ëpp mm-hmm. bu dee noo gis-gis boo am la wala xel mu xarañ moo am la électeur bi am na xel mu ko xarañ lu ñuy toll wala lu ko ëpp donc da nga ku nekk da nga koy bàyyeeg la mu moom. d'accord l'essentiel moo di bu Sénégalais yi taxawee ñu ni diw ak diw ak diw diw mooy ñooy candidat ku nekk dina wax lu mu bëgg a dellu ci réew mi ak nu muy taxawee. d'accord Sénégalais bu nekk di nga xool ci ñooñu kat ku la ci doy nga woteel ko gis nga ñaari ginaar sax boo leen gisee ñuy xeex am na koy faral. ñaari ginaar sax boo leen gisee ñuy xeex am na koy faral loolu mu àddina moo bindoo noonu mais kon nañu bàyyi électeurs yi campagne bi commencé gul. Euh, ñi ngi wut ay parrainage bu campagne bi commencé bu ku la ci terrain bi bu ku nekk samp sa ndënd ñu xool kuy candidat ku dul candidat mais dañu xam pat ñii kuñ ci gën a miin ak kuñ ci gënta miin ay relation ak Ousmane Sonko mhm. euh, loolu tamit lu koy mën a dolli lay nekk wala lu mën a xajamal euh, élection am lay doon bon loolu am na pàcc bu nga mi ngi ci livre bi mhm. euh, maa ngi ko tuddee le boulot le boulet Ousmane mhm. moo di xëy na Ousmane Sonko turu Ousmane Sonko ak digganteem ak Amadou Ba am na sax lu mu yàqal amalu Ba ci parcours am loolu ni dëgg la am du dëgg yàlla rek a xam ne indi nañ ci ay seede ñu liggéey ak Amadou Ba wala nekk ci parti Pastef nekk jege ay Ousmane Sonko. Mhm. lu doxoon seen diggante ak Amadou Ba parce que Amadou Ba aussi ña ko doon xeex ñëpp. li ñu daan wax moo di nitu Ousmane Sonko mooy fi jox Ousmane Sonko xaalis. waaw ñu bëri waxoon nañu loolu lañ ko wax. te kenn ñu bëri jàppoon ne bu nekkee impôt yi demee Sonko. da doon loolu sax mëntul nekk. Mhm. parce que aussi Amadou Ba euh, ba muy nekk impôt domaine mhm. Ousmane Sonko syndicaliste la woon. Mhm. Euh, fekk Amadou Ba Ousmane Sonko jànko moo jiitu woon Amadou Ba directeur des domaines. syndicat bi juddu ci kanam jànko. ñu commencé jaamaarloo euh, Amadou Ba ñëw. xëy na am na ay mécanisme yu mu utiliser ci entreprise am mhm. xaw ma ci service am mhm. ba situation ba tane na wala am na ay situation yu conflit yi fa xam amoon na ak si ak syndicat bi ak syndicat bi loolu mhm. ko fi fi la la fekk fi la mu fekk mhm. donc ba après Amadou Ba nekk ministre ba après ko euh, expliqué jaar yooyu ci livre bi ba lu ñu rajee bu sori am na ñuy wax sax si même si famille si wàllum famille aussi demoon ne bam relation si boobu loolu yëpp aussi xam nga dafa jar dafa ko. wala ay taaw yi la. non non non du taaw yi ah. non non du taaw yi xam nga lan moo ci xew. Uh-huh. tey boo dikkee ku la jëkk wax ne ko way Amadou Ba dafa dem ak Ousmane Sonko ba uh-huh. nekk na employé euh, service des impôts. Amadou Ba nekk directeur général des impôts. Hmm? Ousmane Sonko war a ñaan soxna. yëgal ko patron ni ko ñëwal ci. takk bi mhm. yow tey euh, sa employé bu bu nekk ku nekk fii ci kër gi mhm. Seneweb bu mhm. amee euh, di dem di ñaan soxna dina dina wax patron bi ni ko damay ñaan soxna bi sàngam ku ñuy fii takk aussi bu jee jigéen dina ko yëgal patron bi rafet na patron ba déplacé wu ñëw fa Amadou Ba loolu la def dem ca takk ba bi mu dikkee Cheikh Issa moom la Ousmane Sonko Cheikh Ousmane Sonko bi nekk APR maire Mbour. waaw bu CDC. Hmm? bu CDC. waaw moom la Ousmane Sonko yebal ne ko ñaanal ma. Cheikh Issa Sall ñëw fa ca dij ba ca takk ba fekk fa Amadou Ba. Mhm. wala Amadou Ba fekk ko fa. Mhm. mu nekk kilifa Ousmane Sonko mu nekk seen kilifa. Mhm. Hmm? Cheikh Issa Sall ni ko ah DG kat. cër bi yaa ko moom. waaw jël cër bi jox jëlal cër bi. il se trouve que yaayu xale bu jigéen bi nekk employé. bu Amadou Ba bu Amadou Ba ci impôt. Mhm. non seulement mu nekk employé Amadou Ba ci impôt mais euh, ñu am ay relation yi nga xamee ni que autre la. Mhm. Amadou Ba nekk ñi nijaay ci xale bi. Mhm. kon buñ dee ñaan. ñooñu ni ko ah kon kat yaa ñuy mayeel. waaw moo ñaan moo may daanaka. non bu dikk ni ko kii ni ko yaa may ñaanal kii ni ko yaa may maye. <laughs> waaw bu doon yow da bañ cër boobu. am déet mu ni leen nangu naa ko waaye kon nag ginnaaw bi mënumaa ñaan di may sama bopp <laughs> naa jëbal lépp imam bi uh-huh. c'est ce qui s'est passé loolu teraangay Sénégal la loolu la ñuy doxale uh-huh. loolu dëgg kenn mënu ko dindi c'est de l'histoire te indi naa ci ay firnde ci livre bi Amadou Ba yaayam génn àdduna Ousmane ko ñëw jaale si ko loolu jaaduwul uh-huh. frère Ousmane Sonko génn àddina Amadou Ba dem jaale ji ko te ba ji dafa tàggu président ni ko dama bëgg a jaale ji Ousmane Sonko mu ni ko demal boobu Amadou bi ngi ci gouvernement bi mm-hmm. loolu jaaduwul est loolu lu man gisuma lu ci scandale ba ñuy wax ay lien de famille man gis franchement gisuma lu ma fi jaaxal man en tout cas man de wax du jàll mm-hmm. ka nga xamee ne xam naa ne sax jubluwuma su amee dëj damay dem di ko jaale ji waaw mm-hmm. Hmm? si diggante nit ak nit ci diggante nit ak nit eh, léegi waxuma laa nag nga xamee nag da nga nekkoon kilifaam mu cëral leen li mais dama lay jox benn exemple doomu Amadou Ba takk doomam takk na jabar fii Ousmane Sonko ñëw na ci takk ga mais ba mu ñëwee pour bañ coow Ousmane Sonko pour bañ coow. Mhm. dafa ñëw nekk ca ginnaaw làqatu daal di ni benn xaritu Amadou Ba mën naa ko tudd sax mhm. parce que mi ngi ci livre bi daal di ni ko bon loolu. fee boobu bindu ma ko ci livre bi wax ko ni ko bon nuyul ma Amadou ne ko ñëw naa mais bugguma coow ma bu ma dikkee saafaan ko ci biir mbooloo mi suba mooy nekk une journaux yi waaw gars naan sax dafa am voilà xam nga loolu yëpp da ngay dem ba protéger Amadou <laughs> voilà donc bon ba ñu dëkk gis nga bi Ousmane Sonko bi ñu koy rajee Amadou Ba dañ ko ni mooy protéger Ousmane Sonko parce que d'accordul woon ci radiation bi mm-hmm. il a dit nañ ko affecté wala nañ ko def ay sanctions administratives mm-hmm. gis nga dafa yàlla dafa dogal bi ñu koy rajee sax moom Ousmane Sonko euh, bi ñu rajee Ousmane Sonko Amadou Ba sax dafa nekkoon Seychelles booba conseil des ministres bi ñu koy rajee mhm. booba Rufisque la woon Amadou Ba était absent du Sénégal maa ngi wax ci télévision Mohamed Ndione mooy premier ministre moom moo ko diligenté woon avec Cheikh Ba directeur général des impôts et domaines c'est ça mhm. l'histoire mhm. kon na lu moo fi indi mooy protéger Amadou mooy protéger Ousmane Sonko franchement gisuma ko fi honnêtement gisuma ko fi mais li nga xam ne moo nekk accusation bi gën a wér moo di que mooy bailleur de fonds. waaw ko sax. loolu 2019 loolu kenn ba Amadou Ba ne lu ko naqari la woon. bi Ba ko naqari la woon que moom muy tontul la ci boppam. Mhm. mais li ci gën a doy li ci gën a doy waar. gis nga jour bi nga xamee ne que dañoo jàpp Ousmane Sonko gars yi dañoo nangu ay téléphone am les téléphones ont parlé oui. Ba dafa ma woo ni monsieur mon frère tey moom dinaa tëdd nelaw ma ne ko ah ma ne ma bi jàpp nañu dañ xam ku dul Amadou Ba a été soulagé parce que xamoon na ni moom kenn du mas a kenn du ko ci tudd mais am na ña nga xam ne kay tey am na ñu doon wax di xataraayu naan Amadou Ba Ousmane Sonko mais ñoom gis nañ leen ci. comme kan mais non du ma fi nekk tudd ay tur mais dama la xam nga loolu moo lay wan ni téléphone Ousmane Sonko yi quatre téléphones yi mus koo tracé su Amadou Ba la mas a wax laa ko mën a dëggal mus ta dangu ni am na aucun lien avec Ousmane Sonko. gis nga dama lay jox un exemple dafa am un collaborateur de Amadou Ba et j'en parle dans le livre mhm. muy Dialligé Ba qui est conseil spécial qui fait partie des membre fondateurs de PASTEF mhm. mais qui n'est plus dans PASTEF bu ñu daan wax naan Macky parce que bu ñuy wax naan Macky Sall way Amadou Ba euh, euh, dafa am ay lien ak Ousmane Sonko. xam mhm. bu ay dafa am ay xam bu ñu naan Dialligé Ba. loolu rek lañ ko rek tuddal di Jaligu Ba mhm. te Jaligu la Pastef la mais kenn gën déggatu ko ci Pastef xëy na moom la ko taxaw euh, mhm. jël tax jël ay distance am xam na ko ak keneen ak keneen Doura Baldé bii mi ñu nommé LONASE membre fondateur de Pastef la ko tax jël ay distance am xam na ko mais est-ce que da ngay juger nit ki ci parce que bokk naag diw créer benn association wala benn parti politique il y a dix ans il y a quinze ans mu génn si mais kenn indiwul firnde d'un rapport quelconque entre Amadou Ba ak euh, Ousmane Sonko jusqu'à preuve du côté gisaguma ko bu amee en tant que journaliste nee ma tel journal bind na ko hmm. wala telle personne wax na ko mais ay supputation rek la. waaw ak mbirum famille ma la doon wax sànq léegi. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, Ousmane Sonko ay mbiram. gis nañ bi ñu demee cour suprême. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil yi ak euh, rapporteurs ñoom ñëpp si nañ ba mu des benn juge boo xam ne aussi mi ngi woon si jotaay mi Fatoumata Diallo Ba. loolu yi tamit ñu jàpp ne lu mën a xajamal àtte bi la déedéet mais d' abord le fait que mu bañ àtte si information joxe dafa jàppoon ne la cour suprême war woon renvoyer. comme daf ko waroon statuer ci mi comme Kassane mu mu statuer ci mbir bañ a renvoyer au du tribunal d'instance mais acte boobu yow na nga ko jàngatee. waaw xam nga juge juróom lañu am déet. Mhm. lu tax ñu def leen juróom mooy bu ñu juboowul ci waxtaan. ñu wote waaw majorité bi raw. Mhm. kon ku ci bokk nangu nga ni war ngeen a voté wala nga war am na fu majorité wala féete. Mhm. am déet. loolu mooy principe bi. pourquoi kon yow nga bokk ci juróom yooyu. Hmm? ñu dem ba war a wote ah ñeent ji wote yow li ñu décidé nangoo ko nga daal di nga nga daal di gedd parce que loolu xel nangu na ko kon pourquoi ñuy def kon structure collégiale kenn néewul unanimité bañ bañ bañ unanimité wala bañ témboo hmm. moo tax ñuy def formation hmm. impair loolu mooy principe bi kon nag wax dëgg yàlla man dama koy wax ci télévision hmm. le juge a commis une faute professionnel te loolu xam nga lan moo ko indi. dañoo dañoo bay bayal Sénégal na xam ne bay bayu dafay warut a am. li juge bi def tey jëkku ko def am du moom moo ko jëkk a def am na fi benn juge fii bi benn procès Karim Wade mu jóg taxaw génn formation bi dara fekk ko ci buñ ko daloon buñ ko tegoon ci yoon kon lii du xew am réew dafa am ay responsabilité yu nit ñi war a assumer. bu nit ki defee su dul noonu ak ku mën di doon dañ koo war a teg ci yoon. pour yow da ko war a sanctionner. mais bien sûr dañu war a ubbi enquête administrative. xool xool lan moo war a taxaw loolu. déglu ko déglu ñeneen ñi man du man maay sanction du man maay naan def euh, nii la wala nal mais ñooñu nga xam ne ñoom ñooy seen liggéey war na jël seen responsabilité ñoom ñëpp am réew noonu lay doxee tey mais am na nga ne boo ko defoon yow. mais mais am na ñu ne comme dans l'affaire Karim Wade. moom moo statué woon. Hmm. kon moom euh, mën neen comprendre que personnellement mënu statué dans l'affaire Karim Wade am taxawaay boo xam amoon na ko si. ñu dem ba mooy kan. Euh, ndaw si Fatoumata Diallo ba waaw. Hmm. ñu demaat ba Cour suprême aussi. waaw mais à la bon pas la même affaire tax du benn mais. mbir yi xaw a méngoo. non Cour suprême si beneen taxawaay. non waaw mais non tax non kenn c'est deux choses mhm. yooyu bokkul. c'est vrai la sur les non non bu ñu jugé woon ci affaire Karim Wade mënuñu ko aveuglément appliqué ci affaire Ousmane Sonko parce que c'est des faits différents. Mm-hmm. mais même bu dee loolu. Mm-hmm. moom dafa àndoon ci décision collégiale affaire Karim Wade ñu jël décision. Mm-hmm. ñëpp xaw ma ba xam ñëpp d'accord lañ am déet. mais formation impair la woon ñu soumettre ko à l'appréciation ou au vote des juges ñu tranché ko. pourquoi kon mu nangoo ñëw bokkat ci beneen formation MPR ci beneen dossier xëy na kon bu ñu ko bu ñu ko oowee dugal ko ci même ku lu ko teree kon mu résister woon amoon na nit du bokk ci projet bi xam nga kenn du ko ko aaye. man na ni je me récuse ou bien ñu jël beneen conseil dugal ko foofu mais lu tax defu ko tax defu ko parce que aussi xam nga léeg aussi booy seetlu euh, environnement yenn dossiers yi. Mhm. avant moom muy def loolu. mais am na ay avocat Ousmane Sonko yi nga xam ne bi ñu ne woy bi ñu gisee juge nangam mu génn lañ ni kon décision bi baaxul ci ñun dégg nga ko journaliste nga. Mhm. lan moo waxoon tax kon ñoom ñu war a jàpp ni boobu bu nekkee ci ñoom war a fekk délibéré kon dafa war a nekk délibéré bu leen arrangé xam dégg nañ ko fi. Mhm. lan moo war a indi loolu. kon ñoom kon dañuy kon dañuy dolli tuuma. kon dañuy jàll ni nga xëy ne est-ce que ñoom amuñu woon seeni juge foofu néew ma loolu la de. mais boo ko déggatee wax ji. loolu lay xaw a nuru loolu lay xaw a nuru ndaxte ku nekk dégg na fi nag aussi ñuy jubiler avant la décision Ziguinchor avant ñuy juger Sabassi Faye waaw mais ñoom ñëpp dañoo dikk def seen gàngoor naan euh, Cour suprême amul solo la am solo mooy Ziguinchor foofa la dëgg gi xewee et cetera comme si bañ ko déggee ma am na ñu mel ni man dañ di ah am na lu leen leer dañuy gañe bañ naa ko bind ko

kon lañ jàppoon kon nekkatul kon non dama la bëgg a wax rek foofu ni la. Mhm. yow mënoo xam sa gént loo xarañ xarañ xarañ xarañ droit. Mhm. tant que juge bi àtte daanalul àtte mënoo xam lu muy décider. Mhm. kon leneen loo ci wax rek dangay ngay géntu keneen. te da ngay indi tuuma te loolu moo ci xew. mais sa cour suprême woon maanaam. Euh, vide mbir mi mbenn yoon daal. non ñu xam mbir fii lay mujj. bon vraiment. ñu bañ a renvoyé waat mais. non soit mu kase ko définitivement wala. am na ñu gisee noonu am na ñu mm. gisewul noonu. Mhm. am na ñoo xam ne dañ ne Cour suprême dafa waroon a tranché dossier bi. oui. Hmm? am na mhm. ñu ko ñu ko gisee noonu. comme mbirum délai dafa taxaw mbirum urgence taxaw. am na ñu ko gisee noonu. Mhm. am na ñoo xam ne dañ ne Cour suprême dafa war a renvoyé. kon position yëpp am nañu jàpp ne loolu c'est plus équitable. voilà position yooyu yëpp euh, am na ñu koy défendre. mais euh, kon Cour suprême moom mooy l'instance souveraine. mais au vu des délais. Mm. ak urgence bi am mbirum parrainage bi nga am mi ngi daw. ak yooyu noonu yëpp est-ce mhm. naa comprendre préoccupation boobu. mu nekk une préoccupation vraiment d'équité. Mhm. Euh, politique. Mhm. xëy na Cour suprême mën na jël ci ay prérogatives def lu mel noonu. mais bu dee préroga loi bi imposé wu ko ko yaakaar naa ne. xëy na ay prérogatives lum la. ku am prérogative nag bañ koo utiliser mënuma la forcer nga utiliser ko. yow yaa koy décider. mais am na jàpp ne loolu politiquement ñu koy analyse politique dañuy jàpp ne loolu dilatoire la rek maanaam guddal téel si mbirum Ousmane Sonko pour bañ pour pour bañ mu am fiche de parrainage di ko tardel di dawal délai yi. ba nga gis nga man pour man nag franchement. Mhm. coow parrainage bi Ousmane Sonko bu dee nekk candidat du ay parrainage lay jël ay député lay jël ñu parrainé ko non franchement amul benn sens amul gis nga parrainage bi nii xëy na. campagne électorale la mobiliser base bi. Mhm. natt sa bopp et cetera mais xëy na am na ci droit war na war nañ ko koo permettre mu def ko bu dee am na ci. Euh, yoon may na ko ko. bu dee yoon may na ko ko war na koo def comme ñëpp. Mhm. mais jàpp naa ne bu dee tënk euh, jéem koo galgal pour mu bañ a nekk candidat bu bëggee nekk candidat. Mhm. mën naa jël parrainage député yi. choix bi mu porte si Diomaye non non kon waaw xam nga ko yow justement yaa ngi soog a wax wax bi kon moom coow li pareegul mu tànn beneen candidat kon moom xam na ne warut a dem wala xam na tànk tënk am la. donc kon euh, ba mu ne choix Diomaye Faye Diomaye Faye mi ngi wut parrainage est que kon tënk nañ ko foofu xam nga Diomaye ngi wut ay parrainage léeg bi chaque jour ñu ngi am nañu nangami parrainage kon mhm. tënk amul foofu xam nga léeg-léeg aussi yi bu ñuy wax dañuy wax leen arrangé rek mhm. maintenant pour le chômage Diomaye Faye mhm. man du tànnu dara ah bon non du tànnu dara Ousmane Sonko mii nga génne image bi xam na ne Diomaye nekkul candidat ndax mënul nekk nekk en prison lañ koy toppee la ñuy toppee Diomaye Faye waaw mais kenn condamné ko non non kenn condamné mais xam nga bu dee moom dafa yaakaar ne bu nekk Diomaye candidat dañ ko accord liberté provisoire pour des faits pour lesquels il est poursuivi non dama xam nga la bëgg mën na nekk kaso nekk candidat na nekk kaso nekk candidat mën a nekk kaso gagné élection mhm. bu ko Sénégalais yi mhm. mais dama la wax ne tànn Diomaye Faye du tànnu dara xam nga lan tànn lan lan lay wund mhm. aujourd'hui Pastef dafa nekk un conglomérat hmm, d' et de forces divergentes yi nga xam ne bokkuñu pôle. bokkuñu jumukaay te c'est des forces antagonistes. ña nekk Pastef am na ay démocrates pur et dur lañu convaincu na si ñi xam ne ay salafistes lañu pur et dur et convaincu am na si ñi nga xam ne ay indépendantistes lañu pur et dur et convaincu am na si nga xam ne leneen leen tax a jóg. comme li am si parti yëpp rek. non mais non non non non non kon ci Pastef la gën a fëse. Pastef nga dégg am. un ngañ Demba Touré dem Mali daal di ni que il prône euh, euh, l'islamisme radical. ah bon mais oui. il l'a dit ici avant muy dem. il l'a dit non mais si non je parle devant une télévision. tapel Google internet les déclarations de Bass Thioung c'est le projet de Pastef ça a fait un débat ici dans ce pays. non bi muy wax si mbirum ay daawaak yooyu. Ah, ah, justement mais n'a pas parlé d'islamisme radical. ah non mais non mais non mais xam nga bu ma bu ko tuddeewul noonu aussi mais les mooy l'application d'une charia dans a pays là c'est pas de l'islamisme radical ça ah non non non mais non non non mais non non. ah yow ko jàngatee a parlé def daawa daawa mooy lan. xam nga man dégguma arab li ma gis. moom si mobilisation la doon wax ak yooyu. non non damaa bëgg. xam nga man bu may wax aussi dama jël sama responsabilité. parce que am na ku may déglu ka xam ne ëpp ma ko xel mënu mm-hmm. mm-hmm. ma koo nax mënu ma koo tur lëndëm te am na possibilité yeneen téléphone am mm-hmm. interroger def recherche information xool lu waa ji wax ba xam li ma wax lu méngoo na am déet kon moo ko waxtalu deñ am na ñi nga xam ne dégg nga leen ci Pastef mu nekk des indépendances affirmés amul ci benn parti politique te dama lay wax benn affaire le choix politique de ces gens là disqualifie même leur parti leur formation politique parce que am na constitution nag am na xam ne nangu ko. Mhm. am la forme d'unité nationale ku ko remettre en cause ce parti politique doit être la forme de la de, de respect des institutions. Mhm. dindi. Mhm. dañ la war a euh, dindi. la forme de l'égalité des religions ou et cetera de respect des cultes. ku ko bëgg a dindi dañ la fi war a jëlee kon y toutes les raisons pour que ñooñu ñu leen du fi ame donc dama la bëgg a wax rek ni la. Mhm. kon bu ñu tànnee Diomaye Faye ci courant yu bokkul dafa am courant bu ñu privilégié au détriment d' autres xam nga lan la ñu war a laaj lan moo ko waral. Mhm. xam nga dégg nga fi député assemblée nationale taxaw fii barki Dembo Ndiaye. Mhm. am déet ni Ousmane Sonko dafa dem ba nga xamee ni laal na alal ju laal ndax financé nañ ko financement nga xam ne waru waru ci woon la jot ñooñu dañ koy laaj seen xaalis ndaxte nekkatul candidat ñan la mais non dama la wax xam nga député bu dikkee taxaw wax loolu. Mhm. devant l' nationale déggoo kenn ku ko weddi ci waa Pastef. déggoo kenn ko weddi ci waa Pastef déggoo kenn am nañu ay député assemblée nationale kenn weddi ko fa. Mhm. kenn weddiwu ko fa te la muy wax da ko xam te buñ ko weddee muy indi ay firnde. ñan noo la bëgg a wax xam nga mais finance boobu ñi ko financé bëri toog nañu fii ñu def ay appel de fonds tout le temps fekkee moom fekkee woo ko. waaw ba l' intérieur taxaw artu ni li li dëppawul ak yoon. am déet ah, waaw kon kuy def. ay ñu jàpp ne sénégalais yi nekk. non mais financement extérieur. mais sénégalais yi nekk bitim réew. ñoo doon ñoo doon financé. non non non non yow da yaa Kopar Express non xam nga ko xam ku financé ku financé wul jot nga xaalis bu jógee Kopar Express ka koy da ngaa da xam ni que diw euh, Qatar la jógee wala Émirats arabes unis wala arabes wala France wala New York ka yónnee xaalis xam nga ko est-ce que xam nga ko. mais ñoom newoon nañ pare nañ. si l'état était euh, pare woon na pour am des informations sur ça ñoom pare nañ ñoom sax ñoom dañu faral di bàkkoo ne que ñoom bokk nañ si rare parti politique yi nga xam ne nii en chaque <laughs> fin d'année daan nañu yóbbu ay rapport financier au niveau du ministère de l'intérieur conformément à la ku la wax ne yow état xamu ko bu demee ba état taxaw uh-huh. ministre de l'intérieur taxaw daal di nekk y a des financements occultes par des xëy dafa am fu mu ko teg man néew ma de néew ma. waaw néew ma vous n'êtes mais da ngay néew ma groupe sànq moo ko mm-hmm. financé. mais man naa ci jort xam nga tey dama lay wax exemple. Hmm? Mm-hmm. ma jël xam nga aussi parfois aussi politique da ngay am lu ngeen di seetlu. Mm-hmm. man gis naa fii Ousmane sonk mu def déclaration Ziguinchor. sol blouson militaire ba nga xam dafa am marque militaire kenn du ko wet da ko tappe image marque boobu marque société boobu c'est une société de vente d'armes d'armes de guerre mu sol blouson bi mais kañ lu ko booleeg moom néew ma de ca la bokk. néew ma extra mais tey man bu ma nekkee homme politique du ma sol la nga xamante day am insigne publicitaire. Mhm. kon la mu ca jublu moo ko xam. xam nga yooyu day tey xel te kenn du ko dindi parce que la toile est là on peut faire les recherches documentaires. da nga fa yor recherche lu mel noonu état xëy na am na lu ci xam lu bari la nga xam ne yow xamoo ko man xawma ko moo tax aussi service état dafa am ku nekk loo lu ak looy liggéey gis nga bañ fi toogee fii mars 2021 le ministre de l'intérieur def déclaration à la télévision il y a des forces obscures qui sont en train de amul lu ñu waxul Antoine Diop Antoine avait dit ça oui. lu ñu mujj gis mais ba léegi nii ñu leen naan mais bëgg nañ gis un procès au moins il y une personne boo xam ne nii nee neen kii kat si force obscure yooyu la bokk ba mu dem ba sës ñu xam ne au moins euh, que li ñu doon wax mars 2021 waaw mais ngi ñu jox na takk bu wóor waaw mais force obscure mën na na weesu nit ñëw jël cocktail molotov sànni ko ci benn kaar nit ñi dee kooku réew mu mu àndi xew dañ koy tuddee terroriste am déet c'est du terrorisme terrorisme kay force obscure koy def am na fi am amu fi amul fii amul fii non amul fii amul fii ñu dem taal kër jàmm wala taal mairie wala jéem a taal wala taal police wala attaqué kaaru prix wala attaqué ay force de l'ordre am na fi am amu fi jéemu ñoo dëkk fii dem di def di piéger di dynamiter euh, centrale Sénélec wala ay centrale ndox. mais on a parlé de nervis aussi parallèlement. non am na ñu ne tamit am na ñu engagé ay nervis. non ba jiñ leen sax ne nervis yooyu ñooy faat ay bakkan ak nangam. non non franchement c'est dans cette même affaire là franchement aussi bu ñu naxante suñu bopp. ba si vidéo bi ñu fi projeté woon. mu jël polémique ak yooyu noonu yëpp non jàpp nañu ay nit am jàppuñu ay nit. oui mais na ay nit non jàpp nañu ay nit si jàpp nañu ay nit. ñi ñuy jàpp gis nga ci kenn ku bokk ci ku bokkul Pastef. mais vidéo yi ñu gis tamit. non non mais non non xam nga aussi non non soyons factuels. waaw man tam si fee. non non non ay vidéo yoo xam ne gis ay vidéo ay nit. nga ni fële la bokk. voilà ñoo xam ne sa yenn saa yor gànnaay. ñenn ñi tuddee leen Ah, ñeneen ñi dem sax ba gën a sori naan si siège yu parti diw leen di ko nangam naan non xam nga loolu hmm. yëpp man awma ci firnde li ma am firnde mooy jàpp nañu ay nit yu nekk kaso hmm. xam nañu fu ñu bokk am déet hmm. gisuma ci kenn ka nga xamee ne jàpp nañ la nga nekk ci kaso bi ñu tuumaal la ci mbir yu mel ni jàpp sa loxo ci loolu nga sànni cocktail molotov wala nga taal police wala nga taal kër jàmbur te bokkoo Pastef gisuma ko fi gisuma fi kenn ku ñu jàpp tamit ci appel à l'insurrection te bokkoo Pastef kon man damay jàpp ni kon ñooñu jàpp ñooñu la maintenant nag ni am na ñeneen ñu def. mais présomption d'innocence am na non mais non non présomption d'innocence am na. ñu xaar procès mais justement. ñu xaar procès. waaw mais non mais d'innocence xaar mm-hmm. procès moo tax jàpp leen yóbbu leen ci yoon. Mm-hmm. mais est fee yi ñu wax ni am na amul gisoo ko gisoo fi ñu taal kaar sànni fa ko solo ay nit dee. Mm-hmm. ña ko ña ko def di jàpp leen weddi ko on a eu que. diw moo leen jox xaalis. c'est dans la presse mais ki ñu jàpp États-Unis quand gis naa ñuy wax ne que moom dafa réfuter les faits. non mais ki ah, ne ku ñu jàpp États-Unis ku ñu jàpp États-Unis ku ñu laa ci yemale man. Mm-hmm. ñi nekk ci kaso bi fii daal bañ leen jàppee enquête ubbi ubbi nañ ko. Mm-hmm. presse bi génne na la ñu wax xam nañ ku leen jox xaalis xam nañ ñaata lañ leen jox. xam nañ lu ñu def xaalis ba. ak xam nañ fu ñu bokk ak xam nañ fu ñu dëkk. d' accord loolu loolu moom kenn du ko weddi. d' léegi euh, say relation ak euh, Ousmane Sonko parce que ñu bëri jàpp nañ da nga am mm. un problème personnel ak mm. Ousmane Sonko. Mm. Euh, keroog dala naa sa Modou Niang mu jàpp ne da nga bañ Ousmane Sonko. <laughs> non mais écoutez bon voilà donc est que est ce que franchement. Mm-hmm. <laughs> Modou wax dëgg yàlla xam nga dafa mas a am benn juste ma mu mu xaw ma xë xënteeg moom ma ne ko yàlla na yàlla delloo sa sago. Mm-hmm. ma ne ko yàlla na la yàlla delloog sa sago parce que xëy na yow boo tollee ba at yi nga am hmm, attaqué dit ki rek ku la deful dara parce que la ngeen doon seetaan na seen débat man lu cay yoonu ma jàmbal mu tëb tëb ma ca xam nga ce n'est rien à voir avec ça mais tëb na tudd ca bëgg ma caa dugal xam nga ku mel noonu je lui oppose le mépris. d'accord mais si hmm? diggante ak Ousmane. non parce que non non parce que yaa ko fi tudd te dafa la dafa nekk sa émission wax ci man. Mhm. Hmm? Mhm. nga. am na loolu ni suñu réew lañ ko dafa am suñu culture mu kàllaf dañ koy wekk mhm. dañ koy warmaal mhm. mais nag day fekk aussi mu warmaal boppam xam nga tey toog di accuser ay nit lu ne nga wax leen ko te tegu ko fenn waxuma li la ca yoon wax mais ku nekk wan ko ko jàmbale sa bopp moo tax bi nga ko waxee ça m'a fait tilt maintenant Ousmane Sonko de wax dëgg yàlla yàlla dogal na mos noo seex dara ci àddina ba ñu masee gisante mm-hmm. moom moo ko sàkku am lu mu bëggoon ci man mm-hmm. ñëw wax koog man ma wax koog moom ba mu créé parti politique avant mu koy créé waxtaan na ci ak man ma xelal ko la ma ko ci xelal ay tolof tolofam ak jaar jaaram léeg-léeg ay nit jóge ci moom ñëw ci man ma wax leen la ma ca xalaat ba sànq ci suba. Mhm. bari na ay ñi nga xam ne jege nañ ko. Mhm. léegi la ñu jéem a am ay message ñu jaarale ci man wala egsi ci man loolu mooy loolu mooy Sénégal kon aw moom xaal mi ñaar mais nag lenn moo nekk. Mhm. dama jàpp ni que c'est un homme dangereux pour la démocratie et la paix et la stabilité dans ce pays dama bind livre bind ko ci def ay chronique bind ko ci dama indi ay firnde yu kenn dul dindi un homme politique bu mën a taxaw devant les caméras ni nañu dem fekk ba génne ko dagg ko comme pour man amoo place dans dans l' espace politique amoo place dans la république benn ñaar un homme politique bu mën a taxaw ne armée jël leen nguur gi pour man amoo palace dans la république tu es dangereux. Mm-hmm. un homme politique bu ñuy dem leen kër jàmbul ngeen attaqué leen jël alal jafa nekk pour man jàpp naa ne tu n'as pas ta place dans la république un homme politique ba nga xamee ne da ngay dikk di encourager ay nit ñuy wax ay kilifa diine wala ay kilifa aada wala ñi nga xam ne ay mukkalaf lañu lu dul noona mm-hmm. jàpp na tu n'as pas ta place dans l'espace politique te loolu aussi Ousmane Sonko def na ko am defu ko xam nga kenn du ko weddi kon nag man am naa droit. en tant que citoyen sénégalais weddi loolu. au contraire non xam nga kuy def lan lan la wax sax. képp kuy saaga kilifa diine yi. waaw mais est-ce que waa appelé wul xam nga kon nañ bàyyi affaire kilifa diine yi. Mhm. nañ wax ko coup d'état est-ce que moom euh, wax na ni wootewul coup d'état mhm. wootewul insurrection wootewul ci daggate am déet kooku kon c'est pas un démocrate moi je ku dëkk par exemple tey université Dakar ñu lakk ko mm-hmm. nous tous nous sommes des proches de cette université là mm-hmm. mënoo ko condamner au contraire tu félicité moi te combats deuxième chose après la nga xam ne que aussi foofu lay daa daanele mm-hmm. tey ku dikk dans un pays comme le Sénégal ñu dikk l'armée national ñu jël en otage des solda humilier leen te nga ni da nga bëgg nekk chef de l'État nga gëmm ci sa bët au contraire nga continuer di jëflanteeg ña ko def je considère que dañu wal dañu dañu dañu dañu euh, bokkoo ci système démocratique da waruñu la permettre nga nekk ci. donc man sama position sur cette question là elle est claire et nette. d'accord je considère que Ousmane Sonko est un danger pour la paix. Mmh. est un danger pour la République et pour la démocratie. te je n'invente rien c'est des yi nga xam ne moo ko posé ay actes yu mu posé. bu ci benn dul dëgg rek la ma du dëgg. kon nag pour quoi moom mu def la nga xam ne defuwul ku ko wax ñu ne da ko bañ ku def lu defuwul ñu wax ko dans une république on est dans un système démocratique moo fi def lu ñuy weng ñu wax ko relever ko du benn du ñaar te daf ci bu ci bu ko xam nga am na loo bu ko ñu defee benn sax nga def njuumte la mais bu ci saxee dëkk ci mu nekk son credo politique jàpp naa ne ñàkk koo tudd wala ñàkk koo joxoñ naa fekk la. d' accord léegi euh, beneen kii rek épisode rek pour jeexale émission bi. Mm-hmm. Euh, yaa ngi wax sànq waxi kilifa diine waxtaan bi nga sekkoon ak euh, sëñ bas dafa juróon ay interprétation yu bëree bari bi ngay wax si livre bi nga bindoon si mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr ñu bari tamit attaqué la si yow wax la ne sax <laughs> jotaay boobu ñoom gëmul ne sëñ Bass dina wax si wàllum politique ak nangam lan nga nu mën a indil comme <laughs> nit ñi aussi bu ñu xamul xamuñu rek. Mm-hmm. sëñ Ba dafa am maa ngi koy nuyu sax di ko sargal dafa am teraanga di nga xam ne ak kuréel gañ dañ ko seq dafa yàgg. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. lu ëpp ñaar fukki at a ngi nii tabaski bu jot sëñ Bas yónni ma xarum tabaski xam kooku seq nañ ko. Mm-hmm. sëñ Bas jóge na Touba taal otoom dem seet sama waajur ziyaare ji ko Daaru Marnaan hmm? te du moom rek a ko def. bari na yeneen kilifa dina nga xam ne Touba. Hmm? dañ koy def. Hmm? kon ku xamul nag lu la neex nga wax ko mais am na ñoo xam ne doo leen xam nga nit ki def si dañuy wutal sa bopp nawle. Hmm. am na ña nga xam ne ni doo leen jàppee nawle am na ña xam ne dañuy wax buñ demee Touba dañ ma teg ci ko ñu toog toog suuf am na ña xam ne ñu ngi wax buñ ñëwee Touba man maa leen dalal sama kër yàlla baaxee na ba nga xam ne yàlla may na ma kër ga nga xam ne tubaa amul ku ma fa dàq kër. kon ki nga xamee ni que xëy na amu fa pukkus su ma bëggee ni ma bokkoo fi wala yow doo dara Touba mais du ma saf donc moo tax ma ne nit ki dafay wutal boo xam nawle am na xam ne doo perte sa temps ji leen jéem tontu parce que loolu mooy tax ngay suufeel sa bopp ndax ñi nga xam ne mu ñoo jot ci yow dañuy wut ay sagaru nit wala ay sàmba booy di leen ji ci sa kaw sa di nangu loolu loolu mooy sama position sur ces questions la la ma seq Touba xam naa ko waa Touba xam nañ mais est jotaay boobu jotaay bu nu waroon mettre sur la place publique la. non mais parce que dafa important dafa important li tax mu important mooy mu déranger nit ñi ba ñu war cee wax parce que bu ma toogee ma ni deux mille dix-neuf la ma waa Touba woo ña kilifa yi ni ma nu ma gisee réew mi man leen da ngeen moytu Ousmane Sonko kii nitam buñ fi saxee ay ren di ngeen am problème kooku c'est important loolu la ñu gis gisuñu fi Touba lu fa daawul gis. ñu dikk ba ca ëttu jumaa ja di fa def lu fa defewut di ko fa wax ba sëñ Muntaxa di ci àddu bay naan Baay Faal nañ ma defal est-ce que loolu am naa fa amul kon loolu man dama koo dànkaafu woon waa Touba depuis deux mille dix-neuf kon dañoo toog ba deux mille vingt-deux deux mille vingt-quatre soog koo gis deux mille vingt-trois parce que xamoon naa ne foofu la liy raam ci ñag bi la jëm ma ne leen ñii li ñu def Mali nii lañu fa doxale nañu defee Niger ak Afghanistan ak feneen noonu lañ fay doxale te loolu ñu fas yéene léegi euh, waa Touba jëloon nañ au sérieux alerte bi nga def. bon xaw ma jël xaw ma jël ko mais ay kilifa boo waxee ak ñoom la nga war a waxante ak ñoom. Mhm. parce que aussi du wa du ñu du ñëpp la ñuy woo naan leen noo gisee mbir. Mhm. kon ñu la fa woote nga bokk ca lu koy defar da nga koo war a wax. Mhm. ak lu koy. Euh, lu aar. loolu moo nekk sama posture. loolu moo nekk sama posture. d'accord non loolu loolu moo nekkoon sababu. wax loolu ci livre bi. d'accord te c'est fondamental. parce que la xew Touba dama expliquer ni ko ci livre bi nañuy commencer mooy xarab kilifa diine yi wax leen lu waxuwul wax leen lu tegginuwul wax leen lu weggul dañuy dem ba leen di banaliser. Mhm. ba nit ñi ñib yeb leen miin leen man leen noonu lañ def Afghanistan noonu lañ def Mali noonu lañ def feneen nañu moytu. man leen nag buñ demee ba nga xam nit ñi dem nañu ba jël kilifa diine yi ak kilifa aaday comme ay sagaru nit ngeen baal ma ci wax ci wax bi. ci la ñuy dem nag commencé nag sañal sañ man seen bopp sañ-sañ yenn yi mais biñ fi dikkee amul lu ñu fi waxul sëñ Muntaxa amul lu ñu fi waxul yenn kilifa diine Touba amul lu ñu fi waxal seen waa kër bañ leen ko waxalee waxalee ba nga xam ne boy na ci nopp nit ci lañ commencé nag am sañ-sañu am fitu taxaw sa jumaa ji dafa lañ fa war a def dañ fa wut a def processus bi du changé parce que aussi man samay wax mhm. mën naa bañ neex nit ki mhm. mais kenn du ko dindi parce que dam loolu lay sàmmoon teg sama bopp dama ni nekk naa responsabilité ba nga xam ne xëy na bu ma dee wax da am na ñu may déglu bu ma dee wax am na ñi nga xam ne xëy na dina leen neex am na ñoo xam ne bëgg nañ ma am na ñoo xam ne xëy na bëgg euh, euh, jubluwuñ ma kon dama war a sàmmanteeg ñi nga xam ne dañ may bëgg pour que ñu ma bañ leen a gàcceel ñi nga xam ne dañ bëgguñu ma ma fexee ba nga xam ne aussi ñoom du ñu am raison ci man mm-hmm. moo tax li may wax dama koy seet doo gis mukk ma jàmbal bind te ñetti livre ngi ni tegaloo en quatre mois sur des questions essentielles fondamentaux de la république des questions fondamentales du nga baal ma ci wax ah, mm. mm-hmm. euh, kenn kenn kenn du taxaw ni tel fee amut kenn du taxaw ni tel fee amut d'accord d'accord foofu nag ma sakk sama tànk mm-hmm. fa fi ilaa kuliyaar foofu laa ko fa fa si continuer d'accord léegi laaj bu mujj bi euh, dernièrement on a senti un président mm-hmm. particulièrement amer si yenn cadre yi mu doon yëkkati si bilan wam ak si Pierre Goudiaby Atepa euh, tuddul turam mais ni mu waxee moom xel yi dafa dem si moom ba tudd baatu escroc euh, loolu tamit <laughs> ndax pour comprendre le président il faut ñu demaat si contexte ba mu doon waxee. wala ndax loolu dafay refléter beneen sentiment. man nag dama jàpp ni président de la République du waxantu <laughs> président de uh-huh. bu taxawee yaa bu jàll mi daal wax ci moom lenn ñàkk am na lu ci <laughs> ah, am déet man daal jàpp naa président la fi du waxantu waaye nag aussi. Uh-huh. li mu wax ci ki nga ni Atepa. Mm-hmm. non non non mais xam nga xam nga aussi parfois bu ñuy fàtte leen li aussi am déet ala waxoon na lu ni mel ah Karim Wade waxoon na ko ak keneen ak keneen. si waaw kon nag wax dëgg yàlla kon bu président waxee loolu mën nañ koo teewlu te président nag ku nekk boo tàppee internet gis nga ni moom moo jubale Atepa ak waa Tchad am déet ba yewal ko fa. presse bi am na lu ñuy wax ne que le président Macky Sall a rabiboché avec avec li avec président a permis Atepa de retourner au Tchad. lu fa xew man xaw ma ko xaw ma ko mais au moins président Macky Sall moo moo ko defaree ak mm. waa Tchad nguur nguurug Tchad lu xew seen diggante xaw ma ko Guinée équatoriale amoon na fi coowul Atepa ak ñoom ba ba mënatu fa woon a dem ku ko defaroon ab lay Wade ak leneen ak leneen kon bu fekkee ñooñu wax nañu seen responsabilité la ñu engagé man duma leen tontul mm-hmm. mais dama naan ka xëy na ñàkkul xam na la mu wax dama ciy màndu d'accord en tout cas am naa am mbégte lool dalal ba jabal Diagne c'est la première fois defe naa nga fiy ñëw mais bul fi gëj nag fii sa kër la jërë ngeen jëf wax dëgg yàlla li ma commencé lay bamtuwaat mhm. kontaan naa trop ci mhm. dalal bi ngeen ma dalal mhm. te maa ngi leen di encouragé merci beaucoup wax leen que liggéey bi yombul euh, laaj na ngeen góorgóorlu euh, gën a góorgóorlu sax laay wax laaj na ngeen am fulla ak fayda ci li ngeen di def te lan laa bëgg bu leen am benn complexe ci kenn amul benn média bu nekk Amérique wala bu nekk Australie wala bu nekk France bu leen ëppalee dara la ngeen jàng la ñu jàng fa ngeen jaar la ñu jaar la ngeen xam la ñu xam am ngeen expérience sociale ba nga xam ne ñoom amuñu ko kon nag vous n'avez pas de complexe à faire devant qui que ce soit loolu bu ko defee ci seen bopp rek complexe boobu loolu ñu tuyee ko ci suñuy bopp ñun africains yi amul lu ñu jomb ak lu ñu mënta am amul lu ñu jomb ak lu ñu mënta am bu ñu jàpp ni que teraanga wala daraja ab tubaab la jomb ab tubaab la yelloo fu lu nit doomu aadama war a am africain war da koo mën a am boo dikkee ci xeetu africain lu sa moroom nattangoo am war ngaa mën a am lu ñu toll boo ko bëggee sabablu ko liggéey góorgóorlu ci euh, wutu la yokk ak la jëmale kanam loolu rek mooy li nga xam ne bu dee ay kàddu yu ma la mën a dénk dénk ko suñu nattaango yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu la tàggoog ñun jërë ngeen jëf eh, maa ngi balu ak aussi ci auditeurs yi mhm. euh, bu fekkee kàddu gi am na ci la nga xam ne xëy na waxuwul wala euh, ju jégal ma ci du xëy na xalaat ji la waaye jublu ma ci lenn la nga xam ni que day gaañ nit ki merci beaucoup Madiambal Diagne amoon nañ mbégte lool ak honneur wax dëgg yàlla dalal la tey ji euh, tolluwaay ñuy fàttali ne da nga doon waxtaanee sa téere bi nga xam te ni bi nga ko si Amadou Ba tuddee ko Ba la dernière marche mu nekk téere boo xam ne nii Harmattan euh, moom moo ko euh, édité donc mu nekk téere boo xam ne nii am na solo lool donc ba beneen yoon incha allah à partir de 17h suñu émission ultimatum 20h incha allah 20h30 négocier ak Yaa Seda Aliou boobu moo nekkoon si xarala bi wéy nañ si programme Jaga.